mais Khalifa li ngay wax ni xam nga France. expérimenté expérimenté nañ fi cohabitation. oui à l'époque euh, ki nga xam ne moom mooy euh, président bi ay fonctions régaliennes. ak des fonction de représentation. Euh, rek la doon la doon assuré. oui et c'est le gouvernement. moo uh-huh. doon définir la politique de la nation. mais français de bëgg ñu delluwaat ci loolu de. ils son sont rendu compte que. régime boobu. Mhm. dafa problématique. non depuis depuis depuis cette cohabitation là. Mhm. France amatul cohabitation. cette fois-ci Macron a failli mais ça c'est le vote c'est le vote. mais Macron oui oui mais ça détermine encore la politique de la ce ne sont pas les textes c'est les électeurs qui le déterminent c'est les électeurs qui font que jusqu'à présent le président a sa majorité parlementaire loolu la xam nga cohabitation depuis Jospin amatu fa. depuis Jospin amatu fa donc juste depuis Jospin ba léegi le président a sa majorité donc il y a pas de problème le président nomme le premier ministre le président par le gouvernement détermine la politique de la nation même si c'est le premier ministre qui est responsable devant le parlement c'est le premier ministre le premier ministre fait l'objet d'une motion de censure dans un régime présidentiel fort le, le président ne peut pas dissoudre l'assemblée et l'Assemblée n'a pa de gouvernement à censurer ci seen d'ailleurs ci seen euh, dialogue li euh, l'issue qui va être réservée à cette euh, à cette assemblée là jàpp nga ne dañ ko war a dissoudre non ñu ngi koy wax ñu ngi naan dañoo bëgg a def élection yi en même temps éviter un agenda électoral accentué et puis tamit je pense que li li sous-tendre mbir mi ils se sont rendu compte que assemblée bi quand sa ça pose problème oui mais xam nga euh, c'est pourquoi nous le débat à cours dans taxaw le problème ko a c'est que ni ñu séparé ñaari élection yi c'est le code de 92 parce que jusqu'en 92 ñaari élection yi ñoo doon amandoo ñaari élection yi ñoo doon amandoo da ngay voter président ñaari bulletin nga doon jël voter président voter le député c'est le code de 92 à la demande de l'opposition la ñu wax ni nañ ko séparer. pour permettre à l'opposition de mieux se préparer. et de s'organiser pour que le président ne tire pas sa majorité parce que dañ daan wax ñun ñëpp ñun la di ñun la doon ñun la woon. dañ daan wax naan woowee fal nañu suñu président nañ ko jox majorité donc bulletin bi ngay dugal. présidentielle moom ngay dugal législative soo daan seetlu daawuñu sorante lu bari et l'opposition avait pensé que système boobu da koy désavantage et c'est le code de 92 moo tàqale ñaari élection yi donc dañuy def présidentielle soo fàttalikoo février lañ defoon présidentielle lu 93 et def élection législative ya juillet alors ce qui est proposé tend à revenir sur ça je crois que il faudra qu'on évalue mais yow di nga d'accord ñu dissoudre assemblée bi jàpp nga ne assemblée bi dañ ko war a dissoudre euh, xam nga dama fi waxoon wax ju rëy bi ma nekkee fële yeew yi gars yi jàpp ma ci dama ni leen assemblée bi tel que nu mu configuré président bu ñëw dana ko dissoudre parce que kenn amul majorité xam nga loolu laa waxoon j'étais à Yévi maa ko waxoon damay bañ ñu vaar ma ma ko waxoon j'avais dit sa sa durée de vie là est limitée parce que président bu ñëw di nga jéem am sa majorité parce que loolu mooy li mën ne alors maintenant le problème qu'on a c'est que ce qui me gêne d'ailleurs c'est un peu ça c'est que euh, si le président est élu en avril l'actuelle constitution dit que doo mën dissoudre assemblée bi que deux ans après mais da ngeen ci da ngeen mais deux ans après xam nga septembre la septembre 2024 la septembre 2024 la ci ngay dissoudre assemblée bi ku bëgg. mais defe naa am na ay waxtaan yoo leen ciy sumb. ak waaw moom laa la wax moo tax man la ñu pour que mu mën a. pour que mu mën koo def sans pour autant mu xaar délai deux ans yi boo bu dee am ngeen consensus. pour que président bi mën ko def. waaw bu dee am ngeen consensus. waaw moom ci loolu loolu la ñu waxtaanee moom la alors man la fi mu ne maa ngi on est on est en train d'échanger c'est pas ma position c'est pas la position taxawu. mais la mooy sa ah non ñun ñu ngi waxtaan. d'accord nga ne dañ ko war a. non du ma wax loolu pareeguñu ñu ñu ngi waxtaan ñoom ñu ngi ñoo délégué on est en train de consulter nos députés et tout xam nga c'est un projet de loi. boo xam ne député yi koy voté donc il faut que nga convaincre leen ni c'est une bonne décision et que c'est pas dirigé contre eux donc ñu ngi waxtaan ak nit ñi pour xam.